Euh, du sori noonu ñaari poñ rek laa bëggoon a aborder euh, ñi ma jiitu fii wax na nu ko sànq le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall doit quitter le pouvoir tey gis ngeen ko dayo assemblée bi nga xam ne moo fi teew tey wane ni tey légitimité bi ñun ñoo ko yor boo jëlee liste bi yépp tey nga xool force bi waxuma syndicat yeeg ñeneen assemblée bi amoon jam ñaajo ëppul légitimité ñi nga xam ne ñoo fi toog naam président moom moo ko jiite woon kooku ëppul gëdd ëppul maqaama parce que du assemblée constituante foofu fu mu yóbbu moom mooy le 2 avril au plus tard à 23h59 Macky Sall bu dee entre temps démissionné wut nguur gi tey kujje politique bi force vive yi danañ jël seen responsabilité parce que suñuy lenge du ñu nangu kenn sànni ko ci suuf bu dee parewut pour organiser élection ñun ñu ngi continuer di jot ni Macky sànn dana delloo si xelam dana organiser élection nu ko conseil constitutionnel digalee avant le 2 avril lu tax ma wax ko moom mooy tey discussion yu am jam ñaajoo mënta soppi dara ci li nga xam ne moom la conseil constitutionnel teg madame Aminata Touré wax na ko sànq parce que décision boobu dafa tënk conseil constitutionnel ci boppam moom la ñuy woowee l' autorité de la chose jugée maanaam article 92 conseil constitutionnel fàttali na ko ça s'impose au pouvoir public muy assemblée nationale assemblée nationale amatul benn droit jël benn loi pour jéem a remettre loolu en cause Ça s'impose à Macky Sall qui doit sans délai organiser l'élection mais également ça s'impose aux autorités administratives comme ni ñu ko waxee maanaam préfet sous-préfet gouverneur mais lu ci gën a yéeme moom mooy conseil constitutionnel mi nga xam ne moo teg dogal bi mënatu ci dellu ginnaaw problème boobu cour constitutionnelle yi tranché nañu ko muy beneen muy conseil constitutionnel français depuis 1962 mu ñëwaat en 1988 ak 89 ak ci décision subséquente yi donc loolu moom mooy autorité de la chose jugée maanaam bu ñu xesee teg liste bi day tënk conseil constitutionnel mënatuñ ci dellu di ci yokk wala di ci wàññi tey benn possibilité la am moom mooy mu wéy candidat yi nga xam ne ñoo fi toog loolu du loolu kese maanaam article 92 fu doole bi di génnee moom mooy dafa ne ça s'impose donc autorité de la chose jugée bi daa am leneen li nga xam ne daf ci yokk moom mooy autorité mooy force de la chose jugée maanaam décision boobu day tënk amuñu possibilité loolu moo tax ñuy njort nii ndaam nee na day dem ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci yoonu jàmm mais bu jéemee ba élection amut ñu dinañ jël suñuy responsabilité teg nañ benn comité d'experts bi nga xam ne mu ngi ciy saytu et que yi nañu dalal seen xel fii ñu mën a gérer état xam nu nation di doxee xam nu relation internationale yi di doxee ñoo fi nekk nañu jàpp ni du ñu tumuranke njiit kooku mooy pëj bu njëkk bi bu ci mujj moom mooy mbiru loi amnistie maa ngi koy fàttali sànq man nekkoon naa avocat wu collectif des victimes des violences électorales waaw ma euh, ba muy prêter serment maa ngi woon King Fahd Palace ci ngoon sa ba muy def cérémonie ci salle des banquets di féete maag Bamba Diop mi nga xam ne yàlla na ko yàlla yërëm fan yi passé génn na àdduna papaay dem si yàlla Mamadou Diop ñu ngi woon ci cabinet doyen des juges d'instruction ci ngoon si Radisson mu ne dëjë na victoire am aux victimes des violences électorales te yéen a ci teg seen gën à l'heure du bilan moom mooy président bi nga xam ne moo ëpp passif ci violation droit de l'homme yi ci jëfi dee ci nguur mais li ci gën a yéebe moom mooy ba muy dem alors que dafa waxoon ne mandature am da koy teg ci viol ci contre impunité mu ngi teg loi bi nga xam ne day assurer impunité mais loolu du sotti parce que ñun taxaw nañ pour xeex ko sur le plan international parce que boo leen liiree statut cour pénal international foofu laay tëjee ñoo njëkk a signé statut boobu boo leen xoolee ci préambule bi dafa ne Sénégal dafa am obligation bañ a adopté loi amnistie bi nga xam ne day assurer impunité contre les crimes contre l'humanité foofu laay tëjee donc di leen jëfal ci déglu bi di leen wax ni na seen xel dal di leen jël suñu responsabilité buñ ci yeggee jërëjëf